واجعل كثيرنا يريد للسقيم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit mbokki taalibe yi yéen ñi niy déglu ci Touba Monde bi seen rajo Xassida online Touba Monde bi nekk fi ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Mouhamadul Bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar seen émission bi ñu tuddee man Akhlaq di waxtaan yoo xam ne di leen koy tànnal di leen ko indil bis bu ne li tàmbalee altane bàjjuma bu juróom-ñetti waxtu jotee ci ngoon ki leen koy taxawul di seen mbokkum taalib Ibrahima Ndiaye Khalil. di jiital ci new bi ak siyaar bi xalifa général de Mouride di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di beral cant ak ki nekk ci wàllu xarala gi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall waxtaan waxtaanu tey ñu am yéeni indi waxtaan wi nga xam ne sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Modou Awa Balla Mbacke moom maam Thierno Birahim ci Daaru Moxti mooy ki nga xam ne moo doon amal waxtaan wi waxtaan it bokk ci waxtaan wi nga xam ne daayira Al Wafa di daayira bi nga xam ne mooy taxawal ay waxtaan ci weer koor mooy ki doon amal jataay bi ci Daarul Muxti ci jumaay ju mag ji mu bokk ci waxtaani koor gi waxtaani koor yi solos waxtaan wi ak lim làmboo ci njëriñ moo waral ñu tànn ko indi ko ci biir makaarimal axlaax ngir mu doon njàngale ci ñi xamutan doon it fàttali ci ñi xaman incha allah itam waxtaan wi am nan yéeni séddale ko ci ñaari xaaj maanaam ñaari émission waxtaanu tey wi mooy doon njëlbeenu waxtaan wi incha allah ëllëg ci waxtu wi mooy doon ñaareelu émission bi muy waxtaan wi nga xam ne moo war mottali waxtaan wi ngir ñaareelu émission bi mi ngi jëm ci seetlu yi nga xam ne ñenn ci mbooloo mi nga xam ne ñoo fa teewan seetlu nañ ko ci biir waxtaan wi ñu tënkaat ko ngir ko sara ñaareel ba mooy laaj yi nga xam ne itam mu ngi doon jëmaat ci sëriñ bi ngir ñi doon teewlu waxtaan wi am ci ay tomb yoo xam ne bëgg nañ ci ak leeral leeral googu itam mu ngi ñëwaat incha allah ci ci ñaareelu émission bi ngir bañ a guddal ñu indi waxtaan wi jëkk wi muy waxtaan wi nga xam ne sëriñ Abdou Samad mi ngi ko doon amal ci Daarul Muxti

allahumma la sahla ila ma ja'altahu lana sahlan subhanaka in shi'ta ja'alta sa'ba sahla allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem mbokk yu teew yépp ñu ngi ndokkeel ñépp ñu ngi siyaare ñépp ñu ngi beral nuyoo ak siyaare ak ndokkeel Masasul Wafa di am bégte ci teew ci seen biir tey di am bégte jëkk dafay kàddu di am bégte ci seen taxawaay dan xamal na ñoom li ñu def ñëpp lañ ko defal ndax ñëpp la war liggéey Serigne Touba la liggéeyub borom daabu kenn ku kenn ku nekk war na jaa def solo ki am xam-xam war na jaa xam-xam ki am xalaat war na jaa def côté financier war na jaa def alalam ki am baat war na jaa def baatam la yonent bi alei satu keroo Cheikh Badar wax ak boroom ne ko boo sàgganee ba kuréel bi faatu suuf si kenn dootu la kenn dootu la ci jàmm ne ko boo boo sàgganee ba ñuy gëm faatu dootu am ku la jàmm ci loolu ma ne soo ko wax ak ak ak seen kuréel bi kuréel bu tasee beneen kuréel dootul mën a doxin bi benn mu as dootul ko mën a kon ñëpp ci war a jàpp léeg-léeg boo toogee di xalaat da am jaaxle da am tiitaange ci doxalinu islam ci Sénégal ak doxalinu murid ak mu jëm waaye. am na ci nit ñi ak kuréel yi ak masasa yi yoo xam ne bu seen bu sa xel demee ci ñoom da ngay amaat amal da ngay amaat yaakaar masasa yooyee nag seen masasa bi ci la bokk ku tiit yoon mu rek bu gisee seen doxalin ak ni ngeen mel ak ni ngeen jikkoo xolo xolom daan seddu xelam daan dal kon ñu ngi sant ci yéen bu baax di kontaan ci yéen bu baax a baax la Sëriñ Tuubaa waxoon maam Cerno Ibrahim taxawaay boobee mu ngi di doxal ba léegi dañuy wax ne da ko da ko woo bis na ko dama bëgg nga fóotal sama gàpp gàpp yi ci nekk maam Cerno ko yoon ndax Mbàkke sab am na gàkk mu ne ko waaw wax nañ am na gàkk ma bëgg nga fóotal ma ko ndax borom xam-xam yi dañ ma accuse ne damaa fay taalub jàngu ba bëgg laa boole kuréel bii nga xamal leen lenn ci limala ma la xamal boo ko defee danaa aj sa aaju danaa faj sa aaju adduna sa aaju àllaaxira faj seen aaju seen aaju àllaaxira kon ndigal loolee Sëriñ Tuubaa joxoon maam Cerno ndigal loolee mu ngi ko ne doxal ba léegi di teg ne jamono ngi ñëw joo xam ne ca kanam tuuti ci réew mi ku gàtt ci diine wala nga jaaxle ci diine wala nga rëy ci diine ba ñëw ci sama ñoom doo doo gindu kon yoon woowee jawee ci ngeen aw ndigalu maam Cerno loolee moom ngeen di yeesal moom ngeen doxe kon ñëpp ngeen di liggéeyal ñëpp ci war jàpp li ma waxoon léegi rek la yonte waxoon ne kuréel bu ñu faatoo kenn du jàmme la ci kaw suuf mooy yéen kuréel bu tasee benn kuréel du mën a taxawati kon ñu ngi leen di encouragé ñi ngi ànd ak yéen ci waxtu wu nekk waxtaan wi lu gàtt lay doon moo di yàqu jikko yi lu ko waral ak lu koy saafara waaye dama ko wutal benn introduction mu xaddima bu xaw a gàtt loolu moo di ne ñun ñëpp mën nañoo marché xam ne jikko ju rafet moom la adduna gën a aajowoo ci lépp lu mën a doon boroom xel di nit ku yàlla jox xel muy xel di xalaat bu toogee xalaat adduna ni mu mel adduna ni mu yaatoo adduna ni réer adduna ni bëri ni bëri secret ni bëri njariñ dana am bu ko xalaatam jox loolu moo di adduna bi suuf boppam defur boppam des des koo defar bu fekkee ne des d'accord nañ des koo defar kon war naa am lu ko defar kon lu ñu def ren daraa ko defar adduna moom dara wala kenn amul capacité defar ko du yàlla kon boo toogee xalaat li nga njëkk xalaat mooy kon adduna yàllaa ko defar lu la joxee résultat bu war a am beneen résultat bu lay jox moo di ne suñu borom subhaanahu wa taala bi may liggéey adduna bi boppam taxut ndax soxlawu ci dara ndax bu soxla woon dara nit ñi duñ jot bi mu koy liggéey malaayka yi taxul ndax li ñi bëgg ba ko bëggoon ñi duñ ci koy liggéey jinne yi taxul ndax li nit ñi aajowoo bëgg ko fekkoon te junne bëgg nañ ajo aajowoo ko kon nit ñi duñ jot kon li muy rëy rëy li muy bari bari nit doo nga tax mu def ko nit tax mu liggéey ñetteelu résultat bi mu lay jox moo di ne borom bi mu jógee di liggéey àdduna amul benn kuréel wala benn personne boo xam ne jàppale na ko ci liggéey boobule moom dong moo ko defal boppam mun kenn ko ci dimbali. ñeenteelu résultat bi mooy ne nit ñi njariñ yii suñu borom indi ci àdduna war jariñoo ñëpp a cem kenn gën ci kenn gën ci sa morom ndax suñu borom bi koy bind nit rek a tax mu bind ko kon ku nit rek ca nga bokk kon tax di li ci juróomeel ba mooy ne amul personne amul mbooloo amul nation boo xam ne lii yàlla bind indi ko ci kaw suuf aajowoo ko ñëpp ko aajowoo lu sa dund simple simple simple am na loo bëgg mais insaan bi day am na lu mu bëgg ndax da nga sol da lekk da nga naan da dëkk kon li yàlla def ci kaw suuf si ñëpp ko aajowoo juróom benn lu moo ne lii yàlla def ci àdduna muy njariñu doomu aadama kenn gëntee sañ sa morom ñëpp a ci am ginnaaw sunu borom bi mu koy liggéey kenn jàppalewu ko kon kenn amul sañ-sañ na maa ci gën a yegg fekkonte am nation na ko wala benn personne jàppale na ko sax ñun nag te jàppalee la bu muy liggéey àdduna kooku ma ci gën a yegg waaye loolu amul kon ñëpp a ci am ay droit juróom-ñaare moo ne li ñuy jëfandikoo di ko dunde muy li ñu aajoo dafa tollawul ni ñu jëfandikoo am na kër goo xam ne kilo ceeb doy na ko am na kilo kër yoo xam ne juróomi kilo arrangé wu am na kër yoo xam ne fukki kilo arrangé wu leen États-Unis d'Amérique lim aajoo ci pétrole pétrole par weer tollawul ak li Guinée Bissau aajoo ci pétrole par weer. Chine populaire li mu ndox mu neex muy naan tolluwul ak li Cap-Vert aajowoo ci ndox muy neex par weer kon ni ñuy consommer mbir yi ci nit ñi ak ci nation yi tolluwul dafa ëppante juróom-ñaar bi moo di ne réew mu nekk suñu borom def def na fay koom réew mu nekk suñu borom def na fa njariñ waaye nañ ko exploiter duñu tolloo li ko wax li ko waral moo di ne pour nga génn loola jëfandikoo ko laaj na doole. laaj na xam-xam laaj na alal am na ci réew yoo xam ne lañ am ci seenum réew seen suuf ba lañ koo génne ci loxol kenn du fi am na ci réew yoo xam ne lañ am ci seen seen suuf cinquante pour cent yi la ñu mën a génne la ca des des lañ koy dimbali am na ci ñoo xam ne mënuñu dara parce que bàyyi ak ñoom dafay nëb yàqu waaye kenn du ko kenn ko jariñu te dolli ko mën ne suñu borom mi mu séddalee koom bi ci adduna bi dafa wuute ngir xekk ma lii ñor ci Afrique tey boo ko jiwoon Europe du ko ñor lii ñor Afrique boo ko jiwoon Asie du fa li ngay fekk ci Afrique mën ngaa mën naa mën naa boo dem Europe doo ko fekk comme mango comme ba banana mënut a ñor ci Europe waaye comme pomme ak ak ak raisin mënut a ñor ci Afrique da fekk mu réew mu fees dal pétrole waaye doom benn fépp suukar te suukar li muy tuuti tuuti tuuti mënut a ñàkk ci doomu aadama fekk réew mu fees dalek pétrole wala mu fees dalek jamaa waaye du am yàpp doom jën da fekk géej goo xam ne dafa fees fees dalek jën ci fekk géej goo xam ne du dara kon suñu borom bi muy séddale koom-koom bi ci ci bi daf koo soreele ñii dañoo am lee ñoo am lee te kenn ku nekk la sa borom aajowoo ko séddale boobu am na importance ci bu fekkoon ne ni ko suñu borom bëggee doxale nañ ko ci. kon entente dana am ci diggante nit ñi dañ bëggante dañ respectante dañ fonkante fekkante ne ko suñu borom bëggee dox dox doxe woon nañ man mi am li nga bëgg yow mi am li ma bëgg war nañu mën a waxtaan nga jox ma ci li nga am ma jox la ci li li nga am ki am pétrole te amul phosphate mën nañu weccante ki am suukar te amul jën mën nañu wette borom jën bu fekkoon ne doxal nañ ko ni yàlla ni ko yàlla bëggee kon euh, déggoo dana mën a a am respecté sa dana mën a am ndax li nga bëgg mu nga yor ko naa def tous les moyens pour ba jot ci kon daa fexe ba déggoo yow mais li ma waxoon sànq sànq <coughs> wax ne ni exploité koom-koom bi ci adduna bi dafa tollawul doole yu tollawul am na ci réew yoo xam ne lañ am lépp jox yéen sa bopp kenn doon dimbal am na kenn dimbalu loolee loolee du du am loolee du génn yemuñ ci loolu réew yi am doole pour génn lañ am dañuy génn lañ am bàggal obligé réew yi ndaw ñuy génn lañ am li ñuy liggéey ñoo li imposé prix bi nga koy jënde la am ñoo li imposé bi nga koy jënde ñoom dama joxe misaal daaw rek bi prix pétrole bi yokkoo ba jag jig dayo États-Unis d'Amérique dafa obligé Arabie saoudite na ko sa production danga koy da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy tripler da nga koy yokk da koy def duubal keneen def keneen def ko bu ko defee bu marché bi fees ak pétrole rek prix bi dana wàcc kon ñoom lañ am ci seen réew ña koy seetlu seen bopp waaye la réew ndaw am ña ngi koy seetlu ñoo koy seetlu seen bopp kon bu loolu amee nit ñi du yokk anam bu gaaw anam bu yéeme man nañoo wax ne nit ñi ngi yokk cinquante pour cent wala soixante pour cent par at bu ñu dee ñeent fukk ren bu demee ne juróom benn fukk la ñu doon kon ñaa ngi yokk yokk gaaw ñaareel ba seeni conséquences la ñuy jëfandikoo pour dund mu ngi yokk yokk bu gën a gaaw nañ ñu yokk ko bu fekkoon ni 40 pour cent la ñu li ñuy utiliser jëfandikoo mi ngi yokk 80 pour cent bu fekkee nit ñaa ngi yokk 40 pour cent li ñuy consommer di yokk 90 pour cent wala 80 pour cent source bi moom mi ngi wàññi 100 pour cent. li ñëpp ay jëfandikoo fa muy jógee ma ngay gën wàññi di gën a jeex kon fan la adduna jëm adduna ci màbb la jëm bu fekkee ne jikko ju rafet amut jikko ju rafet ci ci ci dundu mala lañ jëm li nga aajowoo maajowoo ko ñu ñëkkante ma ñëkkal ci ngëpp doole mën nga ko nangu kon jikko ju rafet bu fekkente ne amul ci adduna bi amul ci adduna bi dundug mala ci la ñuy jëm ku man sa morom duma nangu lam yor nation pour ñu mën caa nekk ci jàmm ak di ko am fa jikko rafet mu fañ a kaam aw askan bi ñu wax jikko rafet tax ñu koy wax waaye bu jikko rafet jógee dara nekkatu fa loolu waykat bi set nga dégg nit ku ñu agressé bët bu set nga dégg nit ku ñu rey waaye néewaa na nga di ku gaynde rey wala ku bukki rey nit rek a rey nit te pourtant kat fa gaynde nekk yu bukki yooyu nit ñaa fay dund waaye am nañ pexe yu ñu def pour mu mucc mucc ci ayu gaynde ak ay bukki waaye ki nga mënut mucc ayam mooy yor jikkoy bukki yor yor jëmm nit yor jikkoy gaynde yor jëmm nit kooku mënut mucc pexe moo def pour aar sa bopp ak aar sa njaboot aar sa alal mu def pexe mu la sut fop lor la kon kenn du mucc kon jikko rafet moom la aaj adduna bi gën a mm. ajoo moom la Sénégal gën a ajoo dafa mel ne yëf yi dafa dafa dafa dafa dafa chan dafa dafa dafa renversé wu mala yi dañoo yor jikkoy nit nit ñoo yor jikkoy mala rey baa ngi gën a dolli ko bu set nga dégg ku rey bu set nga dégg kuñ kuñ jàmpaak bu set nga dégg kuñ nangu alalam doo tëgg mukk ñaari weer mukk te déggoo ñu ne kat mbali sàngam fekk na fi liir bu ñu sànni loolu toog mukk ñaari weer ñu ne canal sangam san nañ for nañ fa ab liir euh, euh, conduire sangam for nañ fa ab liir for ca lobb ba for nañ ab liir ca mal ca malet ma for nañ nit lañu te ñu ëpp ci ñoom wax nañu ne jullit lañ mais doo dox mukk ba dégg ba gis mbaam xaw ma mbaam xaw ma sànni doom doo ko gis mukk doo dox mukk ba gis dawkat bu sànni doom wala mbaamu sànni doom kon li ma lay war a def nit ñee koy def kon yàq te jikko foofu la ma ne kon li ñu gën a aajowoo ci àdduna du développement képp mais jikko rafet rek moo tax mooy tax développement mën a ànd ak jàmm bu jikko rafet amul jàmm du te loolu moo ñoroo suñ moo muy tël suñu borom xam kim njëkk bind muy moom moom aadama da koo defal teraanga ju rëy dëkkal ko àjjana boyal ko lu ko neex def te tëgg ko benn service sant ko julli sant ko wor sant ko natt asaka mel mbir képp la ko def mooy garab ko fa nekk mu aay ko ne ko bu ko jege képp kon teraanga mënut a weesu loolee waaye diir bu gàtt la la la maam Adama dox rek daal di jéggi borne bi daal di jéggi frontière bi ko si ma rëddaloon moo la koy jéggi dafa la yàlla la ko yàlla aaye muy première faute boo xam ne nit def na ko contre contre yàlla mi ko jël ak teraanga ji ko def faute boobu maam Adama koy donnante dafa ci deret dafa jóge ci moom ñëw ci doom jóge ci doom ñëw ci sëm ba ci ñun ñi kon lu ñaaw mënta set ci nit ndax dañ ko moñal ak moom fat boobu su maam aadama def li muy rëy rëy diir bu gàtt doomam def na fat bu ko gën a garaaw ndax àgg na ci asaas yi na àgg na ci rey ci diggante xaabil xaabil suñ boroom moo gën a xam ñépp moo gën a xam lépp mu xam ne nit bu ko booyalee wàcc ko mu muy dem te defut ci moom jikko rafet adduna bi jàmm du fi am adduna bi du mën a fi mu bëgg bàgg du ci misaal su borom jël maam Adama raas ko set def ci moom jikko rafet yabal ko ci ci ñoom ne ko jikko ju ma laa bëgg a loolu mooy nubbu ci moom la tàmbale sunu maam Adama def na man pour jubal nit ña def na la man pour teg leen ci yoon. ba mesoom jeex mu dem waaye lu baax dafa woyof te gaaw a far mi bala nga jël doon doon galas teg ko ci bitti booy bàyyi muy sey loolu baax na la mel bi ma aadama demee rek dur bu gàtt rek lu baax di waaj a jeex leeru yàlla di fay ci kaw suuf te bu fayee tal ko dana jafe suñu borom daa dabaatal daal yónni yoon yónni yoon si yàlla nooxi mu ñëw dekkaat taal boobee suñu maam aadama taaloon mu ma def na la man pour jubal def na la man pour gindee ba ñenn ñi gindi ko ñenn ñi réer waaye lu baax ab doxam dafa yeex lu bon ab doxam gaaw te lu bon day wàlle bi mu demee ba gis ne lii mu sowee ci ci mbon ah, ñi bon ñaag li bëgg wàllu bon benn solution képp la la posé borom ne ko faagagal ñu la gëmut bàyyi fi ñu gëm léeg-léeg cirub nit dana am góom na ca wala metti na ca bu docteur yi siw dën jëmm ca dañuy dagg cër wàcc dagg loxo wàcc dagg tànk wàcc loolu la suñ suñu maam nooyin wax suñu borom ba def ko dafa laaj rey mboolem yéefar yi bàyyi fa ñu yàlla mais du gàtt la toog rek lu bon judd aw doxinam gaaw trop lu baax di di dellu ginnaaw ba ba waaj a jeex suñu borom yónni waat aab yoon yàlla uut moom mu beesal moom def na lam la mu a def wax la la mu a wax ba génn ñu bare bare bare dina bu gàtt lu baax di jeex lu bon di yokk mu def la mu wax la nooyeen waxu fàggaagal ñu bon ba fi ñu baax suñu borom def def loolee diir bu gàtt lu baax di wàññikuwaat lu bon yokk li mu bëgg a wax foofu moo di ne da daal ca nooy ca suñu maam Adama ba ci Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ku fi yàlla yónni ku ne def ci nit ñi jikko ju baax rek tax mu tax mu yónni kenn leneen taxul mboolem yonent yi seen mission lépp mooy def ci nit ñi jikko yu baax loolu rek tax yàlla yónni leen amul leneen lu tax ñu def. te loolu yonent wane na ko wax ne ne inno boo si du at tamit maka makaarimul axlaaq dama yónni ngir mottali jikko yu baax kon jikko ju baax képp moo mën a sowe àdduna moo mën a sowe Sénégal waaye dafa woyof dafa woyof dafa woyof dafa sensible dafa mel ni rasul rasul boo tegee sa tànk wala sa loxo boo bësee mu wàcc waaye doo doo teg boo tegee mu fi lu baax noonu lem la ma ci jox message ci loolu ci woyof lu baax yoon ci yàlla Moussa kenn ku nekk xam ne effort bu mu def pour gindi aw nit ba jubal leen waaye 40 jours képp la absenté lam defoon lépp yàqu ñeent fukki fan képp la am ci ci ci ci rendement boromam bi mu ñëw fekk lam defoon lépp yàqu lam àll lañu aayoon lépp du koy def doy na dalil ci Moussa kooku day dalil ci Seydina Muhammad alayhi salaam 23 ans yi mu nekk yonent yonent li mu nekk li mu nekk li ko yàlla yónni 23 ci mu ko yónni ne la wëccee ba yaandoor lekk ci ba suru ngir jubal nit ba jubal lépp ñam ñam nekkaloon teg leen ci yoon waaye bi mu leen wanee ginnaaw bi mu naatam at képp la mu defoon lu ci bari ndax la cay firnde moo di ne ñu ko remplacé muy xulafa rashidun ni kenn ci faatu naturellement muy Abu Bakr ñu des jëpp dañ leen rey ci ñi leen jëpp ay jullit ana Omar ibn kan moo ko rey ki ko rey du yëfër ana aw Usman ibn Affan Usman ibn Affan kan moo ko rey ki ko rey du yëfër Seydina Ali ko kan moo ko rey ko rey bi jullit ko rey Asan Useynu ku góor-góorlu woon na ba teg ñu ci yoon def ñoom jikko yu baax dem ba dem dem dem ba fi ña wuutu gannaawam xaj na ci saytaane wala ci ñu ko mën a waxee càggante temps ba lam defoon lu ci bari wàccu ba tax la lañ meloon ñu dellu dellu mel noone da ca dolli ki moo di ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasallam xam ngeen ne yonent am waaye dañ am ay remplaçant dañu am ñoo xam ne seen taxawaay taxaw yonent lay doon waxee duñu yës yoon ci defar duñu yës ci mbaax ñu ko imaamu Malik ñu ko imaamu Ahmad ñu ko Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Cheikh Ahmad Tijaani Cheikh Ahmadu Bamba su nañ rôle yoo xam ne rôle yonent la defar defar defar defar yonent la waaye la la la la daal ne leen jiitu woon ñu fekk ma dal leen dañ góorgóorlu ba def mbaax ci nit ñi ah bu ñu leen ginaaw rek bu càggante amee rek lan la lan defar lu bari daal daal te yàq te loolu ñun ñii ku nekk technique technique technique sa bët dëkk bi ñun yaakaar ñëpp muy Touba li ma sañ a def jamono yi sañ ko wax kenn sañu ko woon jamono Sëriñ Touba dëkk bi ñu nekk muy suñu dëkk bi su bopp muy dëkk daa muy daa mu si gii li sañ a def sañ ko fay sol sañ koy wax kenn sañu ko woon jamono maam Thierno Birahim kon ñoom la daal ña ña la njiitu ñu wax ko ba dal leen dañ góorgóorlu ba du teg ñu ci njub waaye nag bu dee wan leen ginnaaw bu ñu ña leen wute bu sàggane rek lañ def lépp day day yàqu. te ci dolli moo di ne mboolem nation yàlla alak maanaam ku yonentu bu yàlla yónni rek ci askan day tànn askan wa yées yónni ñoom ci ñoom ñaanante maanaam askan bu baax kenn yónni ci ñoom ñaanante ñu bat rek la ñuy tànn ñoom yoon yoon yónni ci ñoom ñaan pour pour jubal leen. buñ seetee mboolem ñàlla ak ñëpp ñëpp ci ñoom benn ñaawte lañ doon def benn ñaawte lañ doon def yàlla mer leen tax mu alal leen na jël misaal ci xaw ma luut benn ñaawte képp lañ doon def mooy luwaatu ya homosexualité képp lañ doon def ci leen yàlla mer ba alal leen boo demee ci nooxin benn ñaawte képp lañ def mooy jaamu yu xërëm ci leen yàlla mere ba alal leen mboolem yonent it noonu lañ mel mais ñun ñëw suñu jamono ji ñu toll ñëw suñu jamono ji mboolem ñooñu daan def lépp yàlla lay leen ñun dañ ko bokk di ko def lépp teg ko ci joxe misaal bi ci ci ay aaya yoo xam la nga xool ci Sénégal ba xam loolu nga fiy doxal dox fi ba te nekk mooy wala tajal wala tajal dëkk maxluutan ilaa ilaa unatika loolu aaya la wala taqtulu awlaadukum xishta amlaaqin loolu aaya la waa taqrabu zina loolu aaya la waa taqtulu nafs loolu aaya la wala taqrabu maal loolu aaya la wa bil ahdi kooku digle la wa awfu bil kayli isa kuntum loolu digle la waa taqif ma la salaka bi ilm loolu aaya waa tamit fil mar fil haddi maran loolu aaya la wala tajal maa lay wala tajal boo seetee sa xol seet bu baax a baax a baax. mboolem li aaye yàlla aaye lépp boo ko xool Sénégal ñu ko fay def duñ ci bàyyi amul kon ñaaw téef ki la mën a yem yàlla la ñëpp kenn ku nekk li ma koy waxoon sànq benn ñaar képp nga naa def ñu nag lañ doon def ñoom ñëpp ñooñu boole du ko kon amul sikk sàkk lu ñaaw nga ci réew mi ku ko dégg da ko da ko dégg comme di ko gis da nga ko da ko gis kon lu leer lu leer am ñëpp mën nañu wàcc kaamil ne yoon bi yàlla tëral yoon bi tëral ko Sëriñ Tuubaa tëral ko lu bari xaj looy xajam tàbbi na ci loolu moom musique sàkk kon ñaaw te fa ngi ci réew mi xam xam nañ ko baax kon la ca loolu nag ci ci ci waxtaan moo di ne sabu <coughs> jikko ju bon wala jikko ju yàqu ci réew mi dafay dellu ci mbir yu bare bare mbir mooy njëkk a mooy bakkan ci boppam bakkan ci boppam dafa baaxul bakkan ci boppam suñu borom da ko mooñal ak ak ak ak ñawteef bakkan mënut a mënut a sell dafa mel ceeb rek boo ko duyee fokk ay fepp na ca des koy tànn waaye boo ko lekkee noonu lekkalee fepp lekkalee fepp kon bakkan dañ ko mooñal ak ñawteef inna nafsa lamaatun bisu mënut a ñàkk mënut a ñàkk kon la ci njëkk ci yàq ci jikko yi mu ngi dellu ci bakkan ci bopp ndax dañ ko liggéey ak ñawteef ci bopp bis ki rek day ko ne di ñaaw mooy bu ci njëkk sababu ñaar moo di ne dañu dellu ci ginnaaw lu yàgg lu yàgg yàgg yàgg ci xurunul wusta dafa am sira dafa am xeex boo am ci diggante kilifa yi adduna yi ak kilifa yi diine yi bu jotee ca moyen âge diine moo dominé woon lépp kilifa yi diine ñoo yoroon lépp ñoo daa digle ñoo daa tere ñoom la ñëpp daa la ñoom la ñëpp doon déggal kilifa yi adduna yi amuñu woon dara mais loolu boo bee ci nation boo bee ci xeet ñi am yi dañu am loolu naqari ndax njëkkante la te ñëw leen ci njëkk loolu bu xewee ci Europe dafa am politique boobu ñoo jël loolu moo ne ñeeru adduna bi dañu fexe collaborer rek ñeeru at ñeeru adduna ci seen xol ba gëmloo leen adduna ci ñoom def ay jëf yoo xam ne dina da ko aaya wala dina bëgg ko ba loolee xewee ñoom ña yor àdduna daal di wax waa euh, population wax leen na leen ñii ngeen topp ngir diine kat ñu leen digal di leen tere nekkuñu fi diine seen bopp lañ fi nekkal daal di génne ay firnde won ko nit ñi bi loolu amee religion daal di am benn almaa bu ñu xam Martin Luther daal di bedd ki daal di daal di man génn naa ci catholique daal di génn boppam ci protestant révolution daal di am nit ñi daal di gëdd diine gëdd ñun diine daal di ànd ak ñooñu àdduna pour récompenser pour neexal leen nag dañ leen indi li ñuy wax liberté kenn du xëy di kenn kenn du tere kenn pour wan leen ne leen di ñi ngeen toppoon diine dañ leen dañ dañ leen tënkoon ñun nag dañ leen di boyal politique la Occident defoon bi diine yilifee nit ñi pour génne diine ci nit ñi ci diine loole moo dox ba ak si ci nii saa boo xamee ne kilifa diine baatam not ëpp na baatu kilifa adduna rek kilifa adduna ngay def la man pour génn dindi loolee loola mooy dox ci Sénégal yi ba léegi da ngay dégg tur <coughs> ñu laa teg diine di ci moom ay ñaaw jëf te bu ñëkk kenn kenn kenn sañu ko respect bii bàkkee màkkee ma kilifa diine am ak wekk leen ñu wagal mu ne la mukk loolu dañu démb damaa dégg benn rajo ci revue de presse mu wax ne benn mbàkke mbàkke bu nekk Grand Yoff dafa doon jublu emploi bi tëdd ak moom en même temps di ko bi bi bi ñu waxee lu bakkal ne tëj nañ mbàkke mbàkke waaye daal na ñaw ñaw nga xam ne kon situation bi mbàkke mbàkke yi dund kilifa diine yi dund dafa naqari ñu bari ñu ngi def lu ñu mën pour loolee ñu def lu mën pour respect bi dañ kon la njëkk ci mooy lool ñi fi nekk dañuy won ñu ñëw diine yi ne nekk luñ fi diine seen problème fi nekkal ñaawteef yi ñuy ay ñoo koy def kon nit ñi bàyyi leen loolu bokk nañu ko li di gën a tasaare ñaawteef ci réew mi tubaab bi bi ñëwee fii senegal dañoo fekk ñiy xeexe jàppal diine ñu tëj leen ray ñenn ñi jàpp ñu tëj ñi génn ñu wéet ak Sénégal jàpp xale daw yi xamuñu dara former leen seen formation bopp def lañ bëgg mu na ci ñoom ngir ànd ak ñoom liggéey ci réew mi bu fi jógee ñu remplacer leen looloo dox ci ba léegi koo ci gis rek jikko tubaab li tubaab yi def seen xol yi def ko seen seen yi kenn mënu koo dindi mun dana mu dafa dafa xomaak ci doom lu yàqu lu demes na ko réparé bi mu def ba bis jikko yi mu fi tàlloon yëpp defaraat nañ ko ba baax mais ñi seen jikko yàqu tubaab bi yàq ko mun dima fa réparé dama ko màgg ñoom la waaj la waaj a waxoon rek jaaj ne waaw fan akun aariful awa fa wajat qalbatan xaawiyan fa tamakkar moo dal ñoom xol ba dara nekkut la si nekk rek moo koy moo koy moom kenn mun na xoos ba mu def boo doon jël xoos xol ba jeex waaye du mukk loolu mooy moo mooy dox ci réew mi ñoom tubaab bi rek récolter nañ ne gone ku ci nekk yaa ko moom at yi passé dañu imposé ay loi ci réew réew yi arab yi wax leen daara alxuraan ñu def ci ci ci désert bi càll bi dañ ko aaye parce que kilifa diine goo xam ne am na juróom-ñaar fukki at jox ñu jox ko gën juróom juróom-ñaari lam bëgg ci moom la la cay def te lam ca def kenn du ko dóor ko diin insécurité bi bi wax na ñoom loolu ko loolu ko waral état yi dañ jël seen responsabilité wut ay tabax école coranique yoo xam ne ñoo koy financé bopp di ko lu dugg ci xale bi xam ko lu génn ñu xam kon ñoom nangu nañ ne kon xale boo ci juj rek la ci nekk yaa loo ci def lu dëgg loolu moo dal Sénégal ñu fi jiitu ñëpp toobe leen yar def lañ bëgg ci ñoom doo fi gis mukk ba ab góor moo commencé ba léegi nga dégg ne ministre sàngam kat ba mu wàccee dafa dem jàkka ja léegi ma ngay not wala ma ngay jiite wala dafa ubbi daara alxuraan du mukk parce que lañ cee def mënta rek kon mooy première chose bi mooy ñaareelu mbir mi ci yàqtu jikko yi ci Sénégal ñetteel bi moo di dafay delloo ci ci ñun ñun kilifa diine yi parce que ni ni niñ ñu yare ñu suñ baara suñ baara yare teg ñu ci yoon teg ñu ci baax ñu yaakaar topp ñu noonu ñun noonu lañu lañu war lañu war def ci ñoom niñ fexe bu baax fexe bu jub ni niñ war a fexe ba ànd ak ñun mel noonu mel ni ñun mais ñu ñëw ci ñoo ñoo ñoo ñooy dund lool ba ma xasee gëm respecté ma la war sama diggante man nga di ko def kenn koo sàgg na man sama yoonu ko loolu doxin la woo xam ne ñu ngi koy seet yoon wi ñu nekk tey doxin wa gën dama nga sa toog genn kilifa kilifa diine akub taalibeem benn yàlla benn yàlwaankat ñëw di yàlwaan daal ne damay yàlwaan ngir yàlla ak yonent taalibe daal ne waa ji man góoma yàlla góoma góoma yonent man kii laa gëm bi mu waxee loolu man ma ca ma ca nee naa eh may may may may may xaar réaction kilifa gi ba xam dana wax dara may waxut dara dafa ne kon bari na si ñun ñoo xam ne boo joxe suñu àq la war suñu diggante ñu ngi ko def ak comment jël kese baax même bu àqee la bokk na ci li nga bokk yàq jikko ci la ma respecté di màggal di ma ma jox la am kenn ko sàkk sama nit donte la yàlla ànd bi ki jiitu ak jiite ku nekk da war a da war am condition sëriñ bi da war a tëll condition yi mu ànd ak taalibe bi a am condition yi mu ànd ak sëriñ bi saa daggee rek ku ne ma ngaa bàyyi sama morom yoon yàlla Moussa bi mu ñëwee ci xalaat na ko dama la bëgg top ngir nga xamal man lii laa xamal daf ko man ay surut laa ànd ak nit mu ne ko nañ dem man sart boo tëddee daan daan daan daan ko mën a daan sàmmanteeg moom. bañ demee ba sart yee mëntu koo mëntu koo euh, doxal xëy moo ko maa ngi yow fi la ndax li nga li ñu ko kon ànd boo gis dootuñu ànd diine da war a am sart boo xam ne dañuy tënku kii nga topp. ab sart nga war a toppe ki ñu topp ki la topp ab sart ngeen war a ànd Sëriñ Tuubaa dafa dafa waxoon ne yaara gi yoo xam ne kuy bañ seenub jant waru waru waru leen a am muy jabar ak taalibe boo dee sama jabar ji du ma ko aay du ma ko tere ndax kon mu fay kenn takk ko nee na waru am ko mu xàcc dem ci beneen sëriñ nee na waru waru yoo xam ne kuy bañ seenub jant waru leen am muy jabar ak taalibe kon fokk ay sart mënu mun cee ñàkk kero aba aba zarul xasaari ŋàññi Bilaal yoon bi dafa dafa dafa dal ci kawam dafa mer ba xonq ni ko yow dafa naa sàgg ndek surtout da ngaa tax lépp dafa naa gén naa ci jaahili waaye dëkk jaahili nga fees nga fees dell ne ko nag bul tax sama yaa tax bul tax ma découragé ci yàlla ndax dafa naa ñi ma boole jag-jag nañ ndek yow jëgoo aba sër dafa daal tiit daw ba ci penc tëdd jaaxaan daal ne jiñ du jóg fi mu tëdd mukk te Bilaal ñëw teg tànkam ci boppam mu mu tuub tuubali di dem wax ko Bilal ne ko ñëwal Abasar tëdd te nee na bootu ko tànk ci boppam du jóg Bilal giñ giñ sal du ko def parce que tànkam jomb na ko teg boobu wax ne jëbëte na su na su yóotu na yàlla seen kafaar seen géej Abasar ga géddu àdduna ci dem ba bu muy faatu ba mu faatu faatu na suuba ba ngoon amut ko suul kon lam def li muy tuuti tuuti réer du du du du du du du du du du du du du du du du du yott bi dafa dal ci koom ak lu la ba seen diggante ca loxo jaar kon ki nga àndal saa bu defee lu yoon ci ah, yàlla na ko won fi saas waaye boo ko bàyyee noonu rek jikko ju bon du day tam na ko ci njaaree ci murtani benn waaye dóor na ab naar sëñ Tuubaa daal génn daal na ko gënal sama kër topp sa ndax yow ki mu laa te tabbi sa wax waa loo xam ne moo ko debal seen sutu jaxee ñëw na ko dañoo bëgg nga tin waaju seen tubaab ne ko mëneesu ko tin seen su ko mënees na ko seen tubaab ne ko mëneesu ko seen su ne ko mënees na ko seen tubaab ne ko nees ko mu ne ko asaawul këf yi ba ñu dugg seen xunt ba ab xaj daañu nekk lañ fa dund lépp xaj ba dund ko te déwul faatu dara dalu ñooñee marta bañu am ba man loolee am nga marta marta bu ko am bu ko fopp continuer tinel waaj surtout daal daal daal nañ nañu waaju bu ñu bi ñëwee mu ne ko sumugul ba mel na sa ndey juróon nga tubal naar bi waaye dafa noonee mu ko dama topp am su jaxanta moo tax tàbbi sawar daal di woote nag bañ daj ba ñëpp mu leen nag bëgg waxtaan ak yéen ci alal ji ngeen ñëw ak ni ma koy doxale daal ne jox seen alal maa leen koy defal fa gën ci ñoom ndax bu ñu ko yoroon ma leen ma leen tabal sawar maa ngi leen dimbale ñi may laaj alal ñi ngi may ñi ngi may alal mi ngi mel ci nit sa borom jiitu la na kaay nga jóg bu koo topp alal dina fapp say tànk jéng fapp say loxo yeew takk say bët takk sa gibiñ ngay ngay walangu topp sa borom doo doo ko jot. nee na ki la laaj alal ji dafa yor paak da dee dëggal buum yooyee nee na noonu laa mel ñi may laaj ñi may laaj ñi may dimbale waaye yéen ñi ma jox maa leen dimbale ndax mu doon bàyyi seen alal mu tàmbalee sawar kon kookee lan def la muy néew néew te bëggul ko la si jëflante ak Ibrahima def na lu mel bi ma xamee ne moom bàyyam ci boppam ni noonu yàlla la daf jàppee ne ko mul bàyyi kon ànd bi dafa war am boo xam ne ci war kenn koo dagg sa morom sa morom laa war a a bàyyi ba ci topp ba ci topp ci yi mooy dafay dellu ci taalibe bi seen bopp ndax bari ñoo xam ne euh, ñaa ñuy topp topp dina ngir jikko du rafet topp dina ngir diine topp dina ngir yiw mais dañu topp ngir aada kii sama baay sama maam maamam la toppoon sama baay topp ma bopp baayam nu mën mel naa ko topp doonte la maa ko gën loolu yàq na ci bari ci ci yàlla nga topp ngir yàlla xam nga ko saa bu jàddee xam nga ne jàll nga taxaw bañ ko topp ci loolu sëriñ Tuubaa bi ñu ko booleeg Cheikh Sidé ci ci ci gànnaar ñu bari ñu def dañu def ne mooy sëriñam moom Cheikh Sidé dafa na mooy sëriñam benn bis képp la xëy ñu ne ay ca sëñ ko man laa tàggoo yow ndax bokkuñu lu ñu seet yow ñax ak ndox ngay seet man yàlla lay seet kon seetal kenn ma ma seet kenn geloolu ki nga topp nga yàlla saa ba dem baxal jëmutu yàlla seetal yàlla pour son sabab kon yàqtu jikko ji lenn dafa des ci ñun lenn dafa des ci taalibe bi boo xam ne ci gouvernement bi lay dégg ci mooy bi jëpp ndax état moo yor ay luwaam état moo ay gardam état moo yor ay police moo yor ay gendarme lu ko neex mu am lu ko naqari du am loi yi ñu tëral ñoom seen yet lañ ci teg foo gàlluñ saafara ko bu bindee benn stop képp na ko ko wax nga nga stop saa boo ko jéggi jëflante ko yow bu bindee benn sens interdit ne kuy jëm nii nii ngay jaare boo jaaree nii jëflante ko yow kon góor-góor gu état bi par sàmm ay loi bu sàmm loo yàlla loo yàlla yi ñoom mais ñëpp ci état yi loolu intéressé wu la kon yàq jikko yi ndax lu moo ko moo ko moo ko sax moo ko état état di taxaw dafay dafay soññi kàccoor dafay joxe message ci loolu daaw benn góor jigéen dafa def ay ay ay ay ay ay asar rek ne dañ maa téléphone may rey dañ may taaj pour rey daal jóg commencé bind journal yi commencé bind ñëpp commencé coow léegi kookee état yi ci européens yi am ñu ko laaj ne nañ ko ni fii na bala ñu ko rey wax nañ ne kooka dañu ko doon garde ñu garde président kër ba ñu ba mu dem aéroport ay motaar ko yóbbu ba mu àgg États-Unis d'Amérique ko wutal carte ko kër di ko fay salaire nanga mim xaalis ci xaalis ñu def ko internet daal daal publicité ñëpp dégg ko loolu ba bu xëyee ba laata am ba laa am weer am na benn xale boo xam ne amul benn temps takkanteeg benn paa boo xam na am piccu Dakar kon léeg-léeg mawqif bi maanaam position bi état yi taxaw dafay encourager euh, nit pour mu def ñoom pour mu def pour mu def ñaaw ndax taxawaay bi dafa taxawaay dafay dafay sàggal yoon si àll Yaaqub bi bi bi bi bi koy doomee dañu bëgg nga nga boole ñu yuus ko ñoom di sàmmi daf naa bañ ngeen sàggee na ko bu nga dee lekk ko kon la tax Euh, ba xalaat ba la xalaat ba ba xale yi def mën li ko jox dama wutal loolu duñ duñu xam bañ demee ab dër lañ toog ñëw ko wet ba di ko bàyyi ci ñu bagage yi foofu téel lekk nañ kon état dafay def jëf joo xam ne réel mbir moo xam ne dafay encouragé ñu ko def lu ba kon loolee ba mu xewee ba kon dañ ko gëstuwul wala ñu mel ko bañ ko jàlle kon kenn doo kenn kii waaye réew mi ni mu méttee ñëpp génn nañ ko yóbbu nañ ko may nañ ko quartier bi dafa nangam nangam dafay encouragé ñu ñu def ay góor jigéen kon état si état moom responsable bi ci ëpp ci yàqute jikko yi ci moom lay dellu te man moom sama kër mën naa sàmm li sama biir kër mais li ci mbedd mënu moo ko sàmm li ci télévision mënu ma ko sàmm li ci rajo mënu ma ko sàmm la waa ji waxoon wala alfu balin xalfuhum haadibun kafa fa kayfa balin xalfuhu alfu haadib dafay tabax kenn toj tabax du comme bu fekkee na ne junney toj kenn tabax kon tabax tabax du am loo def sa sa kër ci lu baax bu génnee ci mbedd ñu dindi ko sa biir télévision bi yàqu kon état ci responsable bi ci moom moo ko gàddu ndax li mën a aaye moom rek moo ko mën a aaye te it war naa xam ne bu fekkee jikko rafet am na ci nit ñi mu noppalu ñëpp noppalu policier dañ noppalu gendarme yi noppalu avocat yi noppalu ndax jikko rafet amoon kon boo ne boo amee noppalu mën def lu man war naa def lu man pour ñi ñu am war naa xam ne askan bu seen jikko yàqoo kenn mu leen développé réew yi nga dégg daan avancé nañ wala di ko yàq na bañ bañu ñun seen di ko yàqu doon Amérique ni mel nii mel ni woon bu ñu ba buy dox bañ bañ toll fi mu toll mënul noonu France am na position boo ne boo fi tolloo sëw yàq kenn du la développé dafa mel ne saaku saaku saaku bu nëpp nga def ci suuf suuf ba ko yëkkat ko yëkkati mu faj ñettal boo di am réew bu fekkee dañoo gëm yàlla gëm yonte ne yàlla seen borom yonte bi seen yoon te jóguñu topp ñu yàlla topp ñu yonte bi ñàkk du fi jóg mukk tawat du fi jóg xeex du fi xiif du jóg mu jamais léeg-léeg da wax ne Sénégal jafe-jafe yi moo yàlla gee bare ak ak nëng gi ñu ne déedéet ba demee Côte d'Ivoire ma ngay toog guddi bëccëg ba demee Cameroun ma ngay ma ngay toog guddi bëccëg Gabon nangam nangam France nangam dañoo bokkut parce que ki gëm yàlla gëm yonent bi kooku yàlla kilifaam saa bu tooñee yàlla yàlla am sañ sañ sañ sanctionné ko mais ki gëmul yàlla gëmul yonent bi kooku yàlla jotul boom dara mu ko def mën naa kon duñ conseillé suñ conseillé suñu bopp ne ñàkk yeeg tumaranke gi mbon ngi taxul mu am mbon ngee tax mu am en tant que jullit saa boo la yàlla wan la ko daal buñ ko baal suñu bopp mu ko Côte d'Ivoire buñ ko baal suñu bopp mu ko ab daa bokk ndax bokku ñun yàlla su kilifa saa buñ juuma moon ñu ko waa dara ba law masan xaritan kaana amina mutmainna ya'tihaa rizqahaa ragadan min kulli makaan fa kafarat bi an'umillaahi fa azaaqa Allaahu libaasal juu' wal xawf bimaa kaanuu yasna'uun ki gëm yàlla moom saa bu defee lu ñoona yàlla wan ko saa kon ñàkk yi te xiif beeg te tawat yu bari yi feeg delluwoon fi jóge mu mun nga te it war ñu xam ne état dëgër dëgër dëgër mu jeex ndax état mënut a dëgër na gën a gën a gën a dëgër nguurug Firaaw nguurug Firaaw gën a gën a dëgër ndax dem na ba ne maa yàlla na rabbul ala waaye keroog ba ne ba ne bay faatu xam ne yàlla rek yàlla ndax day wax ak ne ko man kat gëm naa yàlla ji mu sàkk suñ borom ne ko ngëm gi ngëm da nga ko yeexee waaye li muy yeex yeex daana ci daana daana lu ma la jariñ fal yam na jiik bi bët ni ka li man li takku li man xalifa ba léegi mi ngi mi ngi nekk pour nga nekk exemple ñu ñëw sa ginnaaw ñan la suñu borom wax mooy ñor at Firawna doo nit ordinaire ndax nga nekk exemple ñi mel na yow bu ñëw jo jo jo kon nguur lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër lu mu yàgg yàgg yàgg ci géej jeex rek lay lay lay mujj Crémé mii daa mujj dellu ci borom kon dellu ci borom rek mooy mooy dellu ci borom mooy mooy mooy mooy jagal lépp bu fekkee dox doxalinu <coughs> politique la ak tëral programme sol xëy na kenn mënu kenn kenn mënu moom adduna moo ko moo ko moo ko ci gënoon def indaa makka na fi ard waate ku ku min ku li seen saba moom moom moom sol xëy waaye dafa am politique <clears throat> bu def bu am solo dafa ne fa man aslama qaala ama ama ama ama man zalama fa sawfa nu'aqibuhu fa yaruddu summa yuraddu ilaa rabbihi fa yu'adhabu 'adhaaban nukraa képp ne jalgati na dafa ne ñaaw téef man sol xëy daa ko mbugal te teewul demee ci suñu borom bu suñu lu tax parce que mbugal suñu borom tëral na nañ ko dugal koo tooj dañ koo mbugal kon mbugal suñu borom tax mu wàcc ki rey fii ci Sénégal ñu tëj ko fukki at lu tax bàkkaar bu fay bu tee du tee bu dee dem sax ki sàcc ñu tëj ko un mois wala mois du tey bàkkar sàcc ki la kon loolu bu mat bàyyi xel nit ñi bu ñu xamoon àtte bi yàlla ci ñoom ñoo koy sàkku seen bopp bu ñu xamoon li mu jariñ ñoo koy sàkku seen bopp politique boobu doxal ci ne man maanaam position nit ci ci ci réew mi jikko ma koy jox mooy moom moom la réew léegi bu demee ci pays européen yi bu ñuy tànn nit dañuy xool jaar-jaaram dañuy xool passé ba xam dafa am yoo xam ne bu xasee noonu nit ki jënd ko da yomb am na ñoo xam ne sàngara leen moom am na ñoo xam ne alal leen moom am ñoo xam ne jigéen moom koo xam ne nag lii moom na la ba noppi ñu jox la responsabilité def loolu loo loolu loo def day yomb bàyyi loo loo def day yomb loolu tax ba la ñoo fal kenn day seet fam jaar door ko ko fa loolu lu lu lu am solo kon loolu mooy ñaaw ñaaw te fi yëpp ci ci ci réew mi kenn ko xam na ko looloo ko lu koy indiloo ca bokk lenn la ci naf si lay dellu lenn la ci ñun sëriñ si lay dellu lenn la ci taalibe lay dellu lu jëpp ci ko gouvernement bi lay dellu lan moo koy saafara ci gàttal muy jafe-jafe jom ñaari mbir képp ko mën a saafara ba ci nekk mooy liberté bi nga xam ne bool nañ nit ñi lu neex waay def lu neex waaye wax il faut ñu waaj dund nit suñu borom a ko bind wutal koy frontière fu mu war a yem saa bu ko jéggee rek des dellu si te muy jafe-jafe réew mi lu neex waay waay def lu neex waay wax lu neex waay sol lu neex waay jël loolu ci lay delloo si jikko yu rafet ci réew mi lay bokk pour moom am loolu lay bokk mu ne liberté bi total ñu fa ci wàññi te muy jafe-jafe ndax tàbbi nañ ci boppam ñoom européens yi nga xam ne defoon nañ ko sax dem ne bëri xam ne nit boo ko baylee na ko loo neex defal daan lor boppam lor gëm dëkkal dana lor boppam lor moroomam nitam benn bis. damaa dugg ci benn métro ci ci ci ci Amérique gis benn benn phrase ci kaw ci anglais dañu wax ne if you see something say something maanaam boo gisee lu jar wax wax nit ki mbooloo na ko kenn amul droit dugg maanaam tàpp ci mbirum kenn léegi wax nañ ne boo gisee lu jar wax wax daal ci teg bi daal suuf daal ne 1444 waroon naa am loo xam ne boobu catastrophe lay doon wax ko tee am kon européen yi xam ne dañoo baloon nit. ne ko neex defal dem nañ ba xam ne lu erreur la ba ña ngi si dellu gannaaw kon xaydi bi dina tegoon nit ki ne nañ koy tënk bu nga ko jéggi il faut que mu dellu si pour jikko ji rafet maanaam maanaam mën a mën a dellu si waat ci euh, mooy mooy la gën a garaaw la garaaw mooy gën a rëy mooy tatbiq sharia ci nit ñoo xam ne jullit lañ sharia islamique population boo xam ne ña fa nekk 90 pour cent lañ doon lañu war a attewoo mooy attewoo ci diina ku ko wax dee baa ñu ko wax. yàlla du nangu mukk jaam yi gëm gëm ko ba juróom-ñeent fukk nangam di jullit ñu leen attee ci benn atte bu dul diina loolu yàlla du ko nangu loolu yaari mbir yooyu pour faj jàngoro yi xool gi ci nit ñi yaar yi fi mu fi ñu limatu sharia il faut ñu tagg temu lu jafe xam ne lu bataay bii ñu teg nga xam ne nit ñi ko teg mun ta mënut a mun a jagal dara mënut a jagal dara tey la kaso yi gën a fees tey la gën a gën dolli tey ñàkk gën a dolli dañu xam ne lu lu lu gën a bari gën a bari gën a bari ñàkk gën a bari gën a bari gën a bari bari criminalité bi gën a gën ndax ñàkk dafay jox nit fit ki ñàkk du ragal dara révolution bi ngeen gis mu am rek. ña ko taal ay way way ñàkk ña ko taal parce que amuñu amuñu amuñu lu ñuy perte saa bu ñàkk gën a dolliku mooy yàlla gën a dolliku ci réew mi ñàkk gën a dolliku criminalité gën a gën a gën a yow kaso yi fees nañ jàll kon xanun bi nga xam ne teg muy àtte yu àtte wu mënut a saafara leen sariya dong mu mën a jubal nit ñi mu mën a indi jàmm ci réew loolu ku ne war na koo xam tamut du jafee wax Sénégal wax fi dafa jafe parce que xamuñu naq waaw doo ko doo ko corriger kenn saa boo nee état na def nangam wala wut def war naa def nangam ñu ne yow kat da ngaa intégriste la wala yow opposant nga te li ci gën a kii yow yow bi ngay wax dina ñor la ba nga di ko wax sa moroom kilifa gi moo lay attaque ne lu tax nga la ci gën a te yow miy wax tey boo xam ne kilifa gi def na nangam tóoru koo def wala wax na nangam tóoru koo wax kenn du la wax dara waaye état bi ko tudd rek ndal ci sa yow ni yow moo moo dal ci kon ñu gis ne kon mboolem kuréel yi yëpp ñu ngi tadaamu ñu def ay syndicaliste di defaaral seen intérêt ba mu def sëriñ ci fii ci Sénégal giraw bu dee déggu ko ba tey gis nga sëfër yi giraw nañ ak yi giraw nañ seel mais sëriñ si doo dégg benn sëriñ giraw musu am mu bu gaa yi sëriñ mais xanaa war nañu loolu ñaqari xanaa xanaa war nañu bëgg dara war nañu bañ dara kon loolu lu am solo te moo jox misaal ci jeexal wax ji mooy borom intérêt yi dañu na ngir dafa na seen intérêt daaw ci gàmm gi si Abdou Si Senior dafa wax wax ay wax joo xam ne dafa naqare journaliste yi te waxu waxu lu ay dafa wax ne mu ñun duñ nangu kenn kenn lañu si kenn dañu dikk li ñu war a wax duñ kenn jël ñu otage loolu la wax duñ nangu benn benn journaliste jël ñu otage wala nga ñu wax li ñu war a def li ñu war a wax wala nga bàyyi loolu war a bàyyi te dañuy bañ loolee bi ko sëñ Abdou si siñor waxee journaliste yëpp dañoo def def benn bande ne dañ koy yóbbu dañ koy porte plainte dañ koy yóbbu ñëpp dañoo am télévision yëpp ànd ak ak yi ne dañ koy yóbbu yoon àtte du wax waxul laay bu ñu dem kenn ku ñuy dégg te li ma def loolu waxul laay mais boo doom ko waxee dégg ko benn sëriñ kaasal dégg benn sëriñ lii wut taw taw kon loolu lu mot a bàyyi xel nañ xam na ñun wax nañ kilifa diin lañ li nit ñi am am nañ lu ko te li nit ñi daj daj ñu duñ xëy duñ gon duñ ñaq duñ def dara te li nit ñi am am nañ lu ko loolu la ko waral loolu mooy diine moo moo moo ñu ko may Sëriñ Tuubaa ñu ñu dund kon mooy suñu sax mooy moom ci la ñuy dund kon moo war doon suñ suñ tooñ yu bay kon war nañ ko defaan suñ suñ filo saa bu ko nit war a jalgate war a juba koo yàq war nañu def suñ filo pour ñu jóg ci loole beneen anam anam ba ci des gars yi ñu ñu suñ kaw xaw ma nañ xaw ma yëguñu yi attaqué nañ respect bii nga xam ne taalibe yi am nañ ko ci ñun ak cër bi ñu jox ba dañoo jekki dañu ba ba ñaram nañ ci seen kon sëñ bu ne war naa bàyyi xel ci loolu nañ ji ma jàppoo ji ma defar suñu intérêt ji ma defar diine xam ne mooy suñu lépp te kat si ci bàyyiwoon leen nii ni balaa loo am diine tax nga am kon léegi li li nga am ñi la ko jox war koo ko diine diine diine moo jox li am kon nag ko dëkk bi yéen sëñ bi sëñ sëñ bi na ngeen ci góorgóorlu conférence yi am na solo loolu mu xam njàng la waxoon naa leen ko léegi mu moom bu tasee di fi dépp yàqu dara dootu baax kon da ngeen da leen wax xaj na na xaj na xaj na kilifa yi biir maanaam duñ gën a ba gis ñaaw te fi ci dëkk maanaam duñ ko gis maanaam duñ ko gis waaye yéen ñi nga ne dox ci dëkk bi mën nga ko gis wala wala ñu taxaw li xaw mooy ab dëkk bu fekkente ne kilifa dina ñoo ko yor seen baat dafa dox kilifa yi adduna ña ngay def lu ñu mën tudd loolee dëkk bi yoon woowu laaw mbàkk bawol gii tey yam ak croisement jam ñaajo am na jamono joo xam ne charia moom rek ma koy doxal ci Sénégal jamono si ma Ibrahima Awa Niang boobu mbàkk mbàkk bawol képp moo doxal charia ci Sénégal léegi boo fa dem moom croisement jam ñaajo am na jamono yoo xam ne tey bii Nioro moom délégué Sénégal yëpp moom la ñu doxal Sénégal tey boo fa demee mook mook mook sàngal ka seen ñooy ña ko tëral bañ demee ña leen wut sàggan la ko àdduna jël dàq nañ diina loolu neex bi nag doxin mu muy dox buñ ci taxawut dara mel ne mbàkk wala mu mel ne ñox na doon suñu ittee ñu ndax suñu moom suñu maama fi ne tuur seen dara tuur seen a ñaq di ba mel ni coono yooyu jànkoonte nañ xiif bu ne xiif nañ ko mar wu ne mar mar nañ ko ba dëkk benn kon duñ nangu mukk kenn jóge ci àll bi ñëw duñ ko yàq dañ ci def suñu fit dañ ci def suñu fula def suñu fayda dinañ def ay conférence dinañ xool li war a am ci dëkk bi li fi amul ngeen ko jot li mag ci kilifa yi buñ defee aaye seen yeen wàcc buñ defut seen yeen wàcc loolu ci liggéey bi la war a la la war a bokk maanaam ñoom duñ génn ba gis day xew waaye ni nga yéen ko xam ne ko gis mën ngeen ko jot leen jox ci liggéey bi buy sàgg mukk bu dëkk benn dëkk yooyu ki ko sos moo ko moom bokk yoru kenn ku ci ku ñëw nag ñax ñax dëkk la fi dëkk la fi kon duñ bàyyi mu kon lii mooy waxtaan wi maa ngi jégalu ci ñax yee tegu ci euh, na mu war a mel ndax xat-xat yi tey daanaka yéen a ngi tàlle bi nu ba ñëw damaa maa ngi jégalu ñëpp defar rek ma tax di wax contre mu état contre mu taalibe contre sëriñ di saa ba ma ñor Sëriñ Tuubaa ma ñor. kon la moom moom moo wax donc ku ci déglu loolu naqari maa ngi lay jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki ñi doon topp waxtaan yi liñ ko leerawan ci njëlbeen ak waxtaan yi xam la ne waxtaan yi mooy waxtaan yi nga xam ne Serigne Abdou Samad Mbacké mi ngi ko doon amal ci Daarul Muxti mu bokk ci waxtaan yi nga xam ne daayir Al Wafa mi ngi koy amal ci weeru koor gu ñu xamle woon ci njëlbeen ak jataa bi xam na ni am nañ pas-pas séddale waxtaan wi ci ñaari xaaj mooy ñaari émission waxtaan tamit mo nekk njëlbeen ak waxtaan wi ñu leen di jox daje incha allah ëllëg ci waxtu wi ci ñaareelu jataa bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ما ذاك من بلا سقاف الموقر الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تناسل